15. daanaa taxaw fii di ko wax di wax ni fi ma seen Sénégal jëm borom xam-xam yépp war nañoo wax imaam yi war nañoo wax ndax bu nu ba virus fitna dugg ci réew mi soo moytuwul di nga toog sa kër bëgg jàmm te jàmm du la fa fekk ku weddi laaj dëkk yi ñu wër fitna yi fa am tey xool leen libi dunduñ ci jàmm tey xool leen Congo xool leen yeneen dëkk yi fi ñu toll rayante guddi ak bëccëg léegi ñun suñuy boroom xam-xam suñuy kilifa diine lan moo waroon nekk seen rôle ñu bari ci nit ñi boo waxee kilifa diine yi li war a nekk seen rol du ñu xool fi ngay waxee ñoom dañuy jàpp ne da nga contre Sénégal dafa bindoo woon ci ay këru diine këru diine bu nekk am benn xalif xalif boobu bu yëgee bu yëgul syndicat ci taalibe ya koy topp mbooloo ma koy topp na mu toll mbooloo ma koy topp ay xale ñoo ci nekk góor ak jigéen ñu am doole ñu néew doole ñooñu nga xam ni dañoo ñëw ci yaw sëriñ bi ne la yaay suñu sëriñ fiite ci yow këru diine bu nekk am ko tay la jaadu woon yow sëriñ bi su réew mi naree basculer da nga wara a génn nga wax nga war a génn nga wax mbokk yi gàcce bi dal kilifa diine neexatul wax de suñu demee ba cardinal rek wax Ken degul ben Khalif bu wax ci fitne yi am ci réew lan mooy seen rôle léegi loolu taalibe bu nekk nag bul na umar sall dafa attaqué de xalaatalal sa bopp nga xool ndax li Umar Sall wax dëgg la walu dëgg sa sëriñ lan la wax moom ci fitna yi am ci réew mi lan la ci wax question la ku nekk na ko yóbbaale est ce que lii moo nekkoon rôlam est ce que lii moo war a ñun dañuy ci rek lay def rek say ci fitna ci mi di am fitna di loru ñiy liggéey di am fitna dëkk bi am jaxasoo ci war a wax doo wax da nga dégg rek maa ngi wax ak diw ci suuf maa ngi wax ak président ci suuf nangam na est-ce que loolu mooy sa rôle est-ce que ñi la topp lii dañ la toppi woon est-ce que ñu jël seen yaakaar teg ko ci nga res leen àllaaxira te àdduna munoo koo régler est-ce que ñoom duñu xalaataat yow sa àdduna kii mënu koo régler bañ nga ko ba dafa ragal a wax ngir benn nit benn buur benn président ragal gaa wax waaw bu ñëwee yowmal qiyaam yàlla ni tëll wa jaa rabbuka wal malaku safan safan ndax dana wax ndax dina wax kooku du wax kon mbokk yi loolu war nañ koo bàyyi xel bu baax war nañ ko bàyyi xel bu baax nañu xam ne kilifa diine yii nekkatuñu kilifa diina de ay kilifa tarixa lañ de duñu kilifa diine de dañuy seetaan rek dëkk bi dem ba gaal gi lap su gaal gi xaree lap ci digg géej gi ñi ci ëpp ñiy dee seeni taalibe lañ ñu ne cell noppi lii ba kañ fan lañu jëm gàcce gënul rëy lii tey ndaw ñëpp ci internet bi ñu ngi naan kilifay catholique yi wax na mais kenn déggul kilifa këru diine bu wax ñépp noppi allahuma hadina fi man hadayt wa afina fi man aafayt wa tawallana fi man tawallayt waaw Choumi TV mi ngi leen di nuyu Choumi TV mi ngi leen di nuyu di leen bëggee di leen ñaanal jàmm ak salaam j'espère que ni vidéo bi fekk na ñëpp ci jàmm mais kon ne encore une fois di leen rappeler ñi nga xamante ni ñu doon abonné chaîne bi Choumi mi ngi leen wax rek ne leen welcome back to the nu ma gën a xam mun naa ne comme rek ni ñu koy faral defee waaw sincèrement nag sama gars yi Njaay day faral di wax naan ñoom seen dëgg kaane la waaw boo ko ruuf mu taxuñu waaw sincèrement nag situation bii du ay situation affaire tarixa quoi mais dañu dañu war a analyser des fois situation yi sama gars waaw jégal ma nag mais ñun les sénégalais ñu ci bëri si ñun nous sommes des des ñu ci bëri ñun soo leen di seetlu sax jikko bi nga xamante ne moom la jullitu war a yore dëgg nga xamante ne mooy taxaw ci diineem taxaw ci réewam ñu ci bëri si ñun doxee ñu noonu ñu ci bëri si ñun Sénégal mun naa ne suñu tarixa la ñu gën a may doole sax que diine lislaam waaw muy benn wax joo xamante ne soo ko waxee ñi mu dul neex dinañ bëri mais loolu mooy dëgg waaw sincèrement li mu wax fii yëpp si vidéo bi sama gars yi dafa neexul rek mais képp kuy nit moom soo ko analyser di nga xam ne li mu wax loolu moom waaw sunu kilifa diine loolu seen rôle la ñoom loolu seen rôle la ñun les sénégalais ñu gëmloo nañu Sénégal quatre-vingt-dix pour cent de musulmans la dix pour cent de chrétiens waaw te njiitu chrétiens yi génn nañu wax mais ñun suñu njiitu réew yi kon ñoom lan la ñuy lan la ñuy jëriñ suñu suñu njiitu diine yi yàlla suñu borom dëgg la bëgg sama gars yi fii ba àdduna du tukki du yàgg ba dëgg doon ay fen du ma sa yàgg ba dëgg doon ay fen waaw sincèrement man chimie dama gis ni sax diine l'islam dëgg ni ñu ko waree téye au Sénégal téye ñu ko maanaam ni ñuy téye tarixa yi sax moo gën a dëgër ni ñuy téye l'islam su fekkente ne yàlla dëgg la bëgg ñun ñëpp xam nañ sama gars yi su ar yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba woon rek di jàngal gars yi naan yàlla nee na yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon participer ci biir société bi waaw su ma soon a gis lu yàqu koy jéem a defar yorante bi su daan dox ci mbedd sax gis lenn lu ñu sànni ci mbedd loo xamante ne mën na mën na tilimal wala nit mën na ci loru da koy yëkkati puus ko wala mu jël ko dugal ko ci mbalit loolu moo doon melo yonent bi loolu moo doon koy yonent bi waaw man su dama gis ni saa bu fekkente ne da nga incarné ni kilifa diine nga sa sa rôle normalement waru yem rek ci diine ji waaw sa rôle aussi dafa concerner société bi parce que si biir société bi nga bokk l'islam nak dafay dafay une religion bo xamantene sincèrement religion bu neex comprendre la mais doomu aadama yu bëri dañ ko jël def ko muy une religion un peu complexe man lolu mom ci jaaxal l'islam moy religion diine bu gëna a neex comprendre ci aduna bi mais nit ñi ñu ko compliqué l'islam n'est pas compliqué man ñun nak suñu l'islam bi ñuy pratiquer au Sénégal mom waaw sincèrement dama gëm ne l'islam la bo xamantene ni egguñu fenn su fekkente ne dëgg ngeen bëgg dëgg ñun ñëpp ay taalibe lañu ñi ay tiijaan lañ ñi ay murid lañ ñi ay laayeen lañu mais ku ci nekk si ñun da nga war a toog des fois nga analyser est ce que yow ci biir tarixa bi nga bokk ñoom li leen war ci diine islam dëgg ñu ngi koy matal quoi seen diggante ak seen borom waaw sincèrement man su ma am idéologie bu ma gëm quoi man man dama gëm ni kilifa boo xam te ne da nga koo yaakaar fii ci àdduna bii te sincèrement say difficultés yi ngay vivre fii ci àdduna bi mën la koo kaasal mën la ci génne waaw moom saa boo ko yaakaaree yomal xiyam ngay caaxaan rek. waaw dëgg nag dafay loo xamante ne ni neexul dégg ñoo am seen soo ko génnee wax ko doomu aadama yi bëri nañ ci gis seen bopp mais sincèrement man fi mi li ma loolu laa gëm man dama gëm ni kilifa diine yu bëri ci ñoom au Sénégal mataluñu seen rôle quoi sincèrement. depuis un bon ñi gis injustice bi Sénégalais yi di dund gisoo ci kenn si ñoom ko génn wax ci gisoo ci kenn si ñoom ko jéem a dénoncé di film yi surtout situation yi ñuy dund mu leer na ñoom ñëpp ñu gis ni que Macky Sall yaaxal na ci réew mi. mais lan moo gënoon yomb tey ñu organiser suñu ay élection yu leer ñu fekk si suñu date Macky Sall toog di jéem a njuuj njaaj affaire ñoom ñëpp ñu toog mel ni yëguñu la xew. depuis un bon moment yi ñu ngi dund injustice. waaw ñu ci bëri ñun sama gars yi soo leen jëlee dossier Ousmane Sonko bi rek ngeen analyser ko mais an kilifa diine ngeen mës a dégg mu génn wax ci affaire Ousmane Sonko bi. te yàlla suñu borom xam na ne Ousmane Sonko luñ ko tuumaal luñ ko fenal mais ñu ko fenal benn benn politicien au Sénégal. mësuñu ko fenal benn politicien au Sénégal mbir mi affaire réew la affaire constitution la waaw doo ay affaire ay politique ak yooyu waaw man dama gëm ni Sénégal imam beeg ñëpp a war a wax situation réew mi waaw wala bëggee dégg ko mais sincèrement sama gars yi li oustaz Aliou Sall wax nii li oustaz Omar Sall wax ni ne axul dégg de mais sëriñ bu la mënul fii ci àdduna fii mënul laa génne sa njaaxare fii saa ba ko yàgg yow man xiyam de waaw soo bëggee dégg-dégg waaw ku yaakaar daal sa waay yaakaaral yàlla jël sa ndey ak sa baay jéem leen fonk quoi loolu laa am lu mu ci wax sëriñ bu la mënul fii àdduna bii mënul yow man xiyam loolu man maa ne ko wax man waaw ku la mënta génne sa njàqare fii boobu ay yaakaar ba nga jëm waaw sincèrement nag ñun les sénégalais dañu war a waxante dëgg quoi surtout ñun jeunesse bi waaw surtout nag la jeunesse sénégalaise da ngeen war a yeewu tuuti sama gars yi yu film yi man lu ma ci gën a métti rek mooy ñoom ñëpp sama gars yi yéen seen bopp mën ngeen ko analyser seen bopp ñu ci bëri si ñoom bu fekkente ne dañu am lu ñu soxla ci politiciens yi yéen taalibe yi yéen la ñuy utiliser pour jéem am loolu ñu ci bëri si ñoom loolu la ñuy def ñu ci bëri si ñoom dañuy utiliser taalibe yi pour am lu ñu bëgg ci politiciens yi mais ñaata yoon ngeen fi dégg ab kilifa diine toog naan wala wala kilifa bu bokk ci benn tarixa mu génn naan ku fa diw war nga Sëñ Tuubaa wala ku fa diw war nga Alaaji Maalik ñaata yoon ngeen ko dégg waaw kon man chemise dama gëm ne su fekkente ne sëñ Tuubaa yoonam nekku ci politique mais bu leen ko dugal ci politique bu leen jël taalibe sëñ Tuubaa yi di leen dugal ci politique naan ay ku voteelul diw di taalibe sëñ Tuubaa wala ku voteelul Karim Wade gëmoo sëñ Tuubaa lan la Karim Wade jëfal sëñ Tuubaa lan la Karim Wade jëfal yoonu murit waxante dëgg quoi sama gars yi li nekk Sénégal dafa ëpp quoi waaw sincèrement nag mais sénégalais bu ci nekk jàppal ni bés dina ñëw di nga wéet ak sa borom dina laaj responsabilité waaw yàlla sunu borom ba mu la bindee bindu la képp pour nga koy jaam daf la bind jox la ay responsabilité pour ci société bi. waaw yonent bi salaay salaam moo gënoon ñëpp ba mu fi nekkee da doon wax ci fee yi nga xamante ne moo xewoon ci société bi nekk fi woon rek naan yàlla nee na ñun ñëpp xam nañ moo fi indi alxuraan ñun ñëpp xam nañ moo fi indi juróomi waxtu julli ñun ñëpp nañ loolu ñun ñëpp xam nañ moo fi indi juróomi ponk lislaam yi mais yonent bi amul woon rek ci loolu lan moo waral ko ñu naan sunna yonent bi soo leen dégg ñu naan sunna yonent bi parce que mooy li jikko yi rafet yonent bi yoroon ñu ko ciy roy waaw sunna nag bokkul ak farata farata mooy loo xamante ne devoir la mais sunna mooy loo xamante ne yonent bi da ko war ko ci roy waaw su fekkente ne nag ñun dañoo jug ne yonent bi la ñu gëm yonent bi la ñuy topp mais kon man dama gis ni saa ku ci nekk suñu responsabilité la pour nga jéem a roy ko yonent bi yonent bi salaay salaam ba fi nekkee da doon participer si bi société bi nekk fi woon rek di jàngal ni ñu ñuy jaamoo yàlla Choumi TV nag dama bëggoon ngeen xam ni sénégalais bu ci nekk sa propre responsabilité mooy nga jéem a analyser lu yoon ñun ñëpp xam nañu sama gars yi instant yi lenn rek la sénégalais yi war a associé wu mooy ni ñuy def ba senegal génn situation muy dund. waaw moo xam muy mécanicien bi menuisier bi ci ay kàddu gerte bi ku ci nekk ñun sa rôle la pour nga génn wax ci. waa te man nag Choumi duma leen ko nëbb quoi ñi gën a positionné pour génn wax ci mooy ñi ñu jiite mooy kilifa diine yi. mais ñu ci bëri suñu lay sénégalais mosuñu leen dégg ñu wax ci. waaw en tout cas daal sama gars yi Choumi TV rek laa génn pour signaler ko ne leen sincèrement sénégalais bu ci nekk dama bëgg sama gars ngeen utiliser seen xel ngeen xool lan moo logique yàlla sunu borom ba mu leen bindee da leen a bind jox leen xel ngeen xalaat kon jéem leen utiliser seen xel yi. waaw yow bee ngi noonu Choumi TV mi ngi leen di bëggee di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen jox rendez-vous ci yeneen vidéo